si làmb ji léegi fi CNG bi toll ak CNG président CNG bu bees. xanaa di ñaanal rek di nuyu ministre Matar Ba euh, di ñaanal Bira Bira xam naa ko 2016 drapeau ma jumul 2016 drapeau de la Kaffrine man maa nekkoon seen capitaine ma nuyu Caaka Fay ak Boy Fay ma fa nekk woon yëpp di nuyu Adma Diouf Kaolack euh, xanaa di ko ñaanal euh, comme fal nañ ko nañ ko bàyyi mu liggéey. moom it mu xam ne làmb ji nekkul moom kese moo ko moom def ko bokk ak ñëpp làmb ji du làmbu kenn. Eh, làmb ji dañ ko war a moderniser. gën koo ubbi gën koo yombalal comme art national léegi moom am nañu art national te ñëpp moom lañ doon yuuxu nañ ko bàyyi mu liggéey Sénégal nag dafa dafa taamu numéro oo lañ gën a bëgg yow góorgóorlu fexe rek ba nekk ba nekk président Sénégal nga gis xeer de dal ba nga yaakaar du noonu sénégalais comme ñoom ñoo ko euh, fal nañ ko pour mu liggéey. na liggéey wax ak ñu mu war a waxal ak ñu mu war a defal mu liggéey xam nga lamb ji ni mu mel ñun kese ñoo ko am football am na fi handball am na fi basket am na fi mais lamb ji ni mu mel Sénégal moom kese la am lamb ji buy tëgg ci jaaykat caab bi borom ndox bi car rapide bi car njaganjaay bi sponsor bi yow mi yor micro ñëpp dañ ciy gis seen bopp moo tax nag ñu war koo yombal ba lu ci waay mën a am mën ko cee dugal mu dox waxuma liggéey amul Sénégal mais làmb lu muy duggaat ci Sénégal ñëpp dañ ciy war a jàpp pour mu dox moo tax moom itam mu xam ne sénégalais am na fu ñu koy xaar yal na fu ñu koy xaar foofu ci lu baax bi yal na ma egg fa mais yal na bu mu échec mandat bu ma yeeku dèjà la dèjà nag saawaay waay yàggul jar sax xiiroo ak ŋaayoo ku ci war a ku ci doon xëccu sax pour nekk fa nañ ko jàppale ñaanal ko ba mu mën a ndax moom bu réussirul lambu rek mooy réussirul <laughs> du yow du moom kasa de bu fekkee lambu dafa échec <laughs> ñu ñëpp a man mi wax ak yow yow da nga échec ñëpp a moo tax nag jaru xeexoo jaru jaru xiiroo jaru ngaayoo ñëpp nañ ko jàppale pour mu doxal lambu ji bu fa waree jógee jóge fa keneen jóge nekk fa loolu laa ci gis mu war cee waxtaan ak mu war a waxtaanal lambu yëpp ñu doxal ko muy lambu boole ak lambu simple. ñëpp gis ci seen bopp mu dox loolu du laa gis ñu mayante cer ku ne lan ci yelloo nga am ko loolu buñ ko defee rek laa mujj du am problème